ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre di bis bi nga xam ne moom la ñu jagleel xeex bi ñu war a xeex ngir dakkal toroxal gi ñu toroxal jigéen ñi ci biir àdduna waa Mbàkke ñoom kenn demul ñu des ñoom sax dañu wax ne dañu gis ne jigéen ñi daal fii ci biir Sénégal danu sonn lool. mooy dóor yi dem nañ bay rendi nit mooy wax wax ju ñaaw teg ko ci deru doomu aadama mooy teg ko muy liggéey liggéey bu metti loolu genre violence la. liggéey yu xam ni xale yi boo demee ñu ngi leen di jaayloo ci marché bi am na ñoo ne ñu ngi bale gis naa sax xale yoo xam ne ñu ngi soq ka wal ñu ngi waas ñu ngi togg xale di ko jàngal liggéey mais nag dafa am âge bu rek xale boo xam ne am na âge boo xam ne am na liggéey boo xam ne àttanu ko te nag droit dafa am xale dañu am ay seen ay droit yoo xam ne defe naa parent dañ ko dul appliquer violence yooyu tamit violence yoo xam ne rek mooy rey nit ki walla violer nit ki xale yi ak jeune fille li ñuy subir métti na nit ki di nga nek sa tante ba nek sa yaay ci kër gi par exemple ñu ñu école école xam nañ ko yeen sa yi nga gis benn école bu xale bu tardé école nga ni xale bi lutax ñewulo mu mun dandi mën bale raxas ndab soko ñëw loolu yëpp sur le sur le plan moral dafa am lu muy lu muy def ci xale am lu muy def ci xale yooyu yëpp genre violence la. wa limoko nimoko jangate metti tu xol la ci am bu metté méttee ndax dama jàpp ne jigen mom am na lu si gën a jekk daal lu nekkul méttital wala nga koy xorñoñal wala nga koy rey daal jàpp naa ne daal jigéen na am na yu baree baree bare yu ñu war a def si moom lu lu daw daal méttital yi ñu ciy def moom lu dul ñaawlu ko méttit lu ko man de wax dëgg yàlla am dama ci am naqar boo xam ne te xam naa ne ni naqar bi ma si am la si jigéen yëpp am métti na lu métti la lu métti la daal fa bu métti di am. fi mu ne nii ah, jigéen fi mu ne nii jigéen ñi dañoo sonn jigéen ñëpp la nag waaw parce que boo déggee bu amul semaine booy dégg te violé wuñ benn jigéen wala ñu benn jigéen loolu nag vraiment dañ cee war a jóg taxaw waaw di ci teg ay daan yoo xam ne yii kenn ku nekk boo ko xalaatee doo ko def waaw parce que tamit dafa yomb ci ñu ne ñu balaa bëgg dee rek ñu def dara pare ñu naan présomption d'innocence dëgg la. mais am na loo xam ne amatul de naissance parce que du lay fàng la bërki démb ki rey ndaw si sëy xadi sëy xam nga ne kooku amatul d'innocence koo xam ne paaka bi ñu ngi ko nangoo sa loxo ah nga jam nit ki juróom benni paaka xam loolu tamit dafa metti ah ñun vraiment ñun jigéen ñi fi mu ne nii nañu nañ ñi ngi ñuy violer ñi ngi ñuy rey ah buñ te si ñun lay dellusiwaat parce que da ngay xool sax benn meurtre rek bu bu ko góor lañ yaayam déjà mi ngi ci dans tous ses états ah bu dee ku jigéen moo gaañu yaayam mi ngi ah, moom lañ blessé yaayam mi ngi ci tous ses états ñun moom lépp day ñëwaat sunu bopp. waaw mu nekk lu metti jigéen moom kenn waru ko dóor kenn waru ko fitnaal kenn waru ko toroxal te seetlu nañ ne daf loolu dafa bëri léegi ci dëkk bi mais li ko waral nag mooy maanaam ñàq gi nekk ci dëkk bi moo waral lu bëri di am yëfi daal war nañ ko xoolaat daal bu baax a baax. parce que mën nañ ne fi ne li xew léegi maanaam violence faite aux femmes lu jeggi dayo la jéggi na dayo torop trop trop metti nañu ba fa kanamu yàlla te il faut que sa ces nag parce que dama yaakaar ni euh, ñi koy def dañu fàtte ne ñi ñi koy def muy jigéen ñooy seeni yaay ñooy seeni ay jigéen kon yaakaar naa ni nag lu jar a waxtaane la parce que il est temps ndax yëf yi jéggi na dayo doy na waar doy na waar metti na ba fa metti yam métti métti kuy yaay rek métti na la def naa ci benn audio sax waaye doyul waaye nag képp koo xam ne waxuma la jigéen de mais yéen góor ñi sax ñu ngi sentir viol yi ci jigéen ñi te ñu ngi ko xaaruñu ko woon Sénégal mais rawatina ci département Touba ak Mbacké mais rawatina ci biir Touba Mbacké ndax Touba nekkoon dëkk boo xam ne dëkku yërmande la dëkku làquwaay la dëkku ba la boo xam ne boo amee lu la boo dawee ñëw fi raw nga mais ñu dem jamono di dox ba ñu dëkk boobu tey ñuy jël ay tuut tànk li nga xam ne doomi sëñ Saliou bi ki fi njëkk nekk ki fi mujjee nekk Serigne Touba Khadim Rasoul jël xolam yëpp def ko ci xale yi muy tuut tànk yi mu bëgg leen lool ñu dem ba nga xam ne ay xale tuuti ñu ngi leen tër di leen rendi mu nekk lu ñaaw. bundu taal bi métti na ma ndax jigéen jigéen mooy suñu yaay jigéen mooy suñu lépp si àddina képp koo xamante ni rek yaa ngi bundu xataal jigéen man pour man damay wax ne est-ce que jigéen moo la jur ndax jigéen mooy suñuy soxna jigéen mooy suñu yaay jigéen mooy suñu lépp waaw man nag man nee naa affaire bi dafa dafa métti dafa métti surtout xale yu jigéen yi nga xamante ni dañ leen di jël tëdd leen ba pare bàyyi rey leen dafa ñaaw ñii di ay jigéen ñu nga xam ne dañuy yëngu ci wàllum politique ñenn ñi di yëngu ci wàllum koom-koom ñoom nu wax ne jigéen ñi sonn nanu ci mbedd mi waaye ci biir kër yi waxi nopp ndax yéen saay seeni boroom kër dañ leen di toroxal ci seen diggi nawle man nag pour man en général nit ki sës si yow rek moo la koy def ndax jaambur bu ñëw def la ko waru la rey mais ki sës si yow moo la koy def en général kilifa moo la koy def si lu mel ne baay wala nijaay wala ku takk si yow moo koy def man nag lu ma metti la man na koy faal. boo xoolee tey jigéen sa borom kër soxla sax lu soxla la nga xaw a gàntu sax mu am nu mu demee yow loolu rek ci violence la bokk nga wax ak sa jabar gëdd ko maanaam loolu rek ci violence la bokk li ko ëmb daal bëri na ba tax na war nañ delloo si xel yi bu baax a baax a baax te yaraat suñu bopp yaraat njaboot gi. te yërëm jigéen ñi parce que viol bu amé ci góor ñi la rey bu amé ci góor ñi la kon donc war nañ xolaat góor ñi bu baax xeyna peut-être amna lu nekk seen bop lu tax ñuy def lool mais lool nañ ko xolaat lool état na ci xolaat bu baax. do xam fu mu mais ñi wara and ñoy and mais gis nit ci télé ngay wax ci réseaux sociaux gis ci ku am réseaux sociaux ngeen takkante ah, duma wax baaxul de waye du li gën li gën. dañ daan wax diw mii nañ ko may doomi diw ñu ko même bu dul sa mbokk sax ngeen dëkk lu yàgg wala ngeen xamante wala seeni mbokk xamante waaye ana yow ana man rek ah en tout cas war nañoo xoolaat suñu bopp delluwaat ci njàngalem démb mi pour mën a génn ci li ñu nekk. bu baax a baax góor ñi ñuy dugg ñan góor la parce que jékki dugg ci góor boo xam ne ban genre xamoo ban genre góor la tamit loolu yeneen lay indi te góor ñi dañoo xaw a doy waar bu ñuy dugg si tamit duñ la day am yeneen jikko yuñ la wan. du wan la boo xam ne yow doo xalaat ne yow kii dina la mus a def lu wala mu yëkkati tibb tàng di ko teg sa loxo da dem ba si biir mu lay def yu metti yoo xam ne daal kenn xamul lu doon lii daal dafa ñaaw metti violation bi dafa ñaaw ñaaw ñaaw na fépp nag ci bépp côté la ñaawee. waaw li ko war a saafara day man li ma jàpp mooy maanaam nañu ñaaxaat njaboot gi yar njaboot gi surtout delloo si leen. ah solution yi mooy léegi moom dëkk ba ku rey nañ la rey. waaw peine de mort ku rey nañ la rey suñ ko defee rek rey yi dina wàññeeku. waa xam nga loolu solution bi mooy wax sensibilisation mënut a ñàkk communication mënut a ñàkk ndax dara bala bala am na ñoo xam ne xamuñu wala euh, xamuñu ni lii bu ko nit defee war nga koo yóbbu ci béréb sàngam pour ëllëg mu bañ koo def mooy sensibilisation bi mooy communication ba ñu fexe bay dénoncer nit ñi bay dénoncer nit ñi. fexe tamit ba bu 16 jours yi jàllee ñu tënk ci loo xam ni bu ñu ko yóbboo assemblée euh, état euh, dina fexe ba lii ñu tënk euh, ñu fexe ba promulgué ko ba mu xam ne xëy lii ko def lii amul amul amul nijaay amul jarbaat amul dara ko def lii moo la ci war a fekk. ñuy lancé appel nag man maa ngi interpellé état di dafa jot ku mel ni ñàkk caaxaan bi fi nekkoon sëñ ab laxat dëkk bi amoon yeggutoon fii mais am na foo xam ne ba mu fa tolloo fekkee wuñ ko waaye dégg nañ. amoon na ñu mu doxee waaye il est temps ñu waat noonu raxasaat dëkk bi indiwaat fi façon mala yooyu ñu seetaat ko saytuwaat ko ndax ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk Touba nekk ay jigéen am nañ tiitaange suñu doom bu ñu jàngee fu timis jotee kenn doo da ngay dem taxaw ci buntu kër gi fekk sa doom yegsiwul da ngay tiit. ñu ngi ñaan nag état mu jàppale ñu ci bu baax a baax a baax parce que ñaawteef yi métti na daal foofu méttit yam. il faut que nag at état jël ay matuwaayam nag état ci boppam nag dafa war a jël ay matuwaayam.

waaye ñun ñi sosoo tuubaa nga xam ne sunuy maam ak sunuy ñëpp fii lañ ganee àddina ci Touba xamuñu lii xew léegi kon nag nañ ci wax nañ jël état bi jëlaat ay matuwaay dolli ko ci amoon le ministre de l'intérieur je l'interpelle directement monsieur Aly Ngouille Ndiaye et le ministre de la justice parce que lii il faut ñu taxaw ci parce que bu dul loolu tamit nit ñi dañuy fajal seen bopp. mu taxaw génn benn loi képp koo xamante ni violé nga xale. rey ko viol rek bu ko bu bu ko defee rey ko war nañ ko def ni ñuy def noonu mu def ñu def ko ko décret bi moom moo ko war a génne ñu ray la waaw loolu la war a def ndaxte lii dafa métti xoolal bi nekkoon garage yu xu doos lu ko gën a metti si àddina nga yor sa doom yor nekk xale bu ndaw ëmb 4 mois ñu ñëw tëddale ba pare rey la lu ko gën a métti ak yeneen ak yeneen xoolal ki dóor bari ki démb euh, soxnaam waxé ñu né da fay mandi mandi ba ci lan mais ni mu def soxnam lañ ko wara def dañu war ku ray nit ñu ray la parce que da dafa metti dafa mel ne ñun dal suñu dëkk bi Sénégal xoola nit ku nit ñu bax ñi fi tëdd nit ñu bax ñi fi nekk ñepp jigéen ay seeni waajur képp ku ñi tuddu rek jigéen nako jur ku ñi suko la karamal jigéen nako jur kon nak ñoo lay ñaan yow président Macky Sall nga jappalé ñu en tant que ñun des femmes nga jappalé ñu ngir yalla nga jappalé ñu te yàlla tax nga jug si lii yow dong nag lañ si yaakaar kilifa diine yi kilifa aada yi yow rek lañ ci yaakaar ginnaaw yàlla nga jàppale ñu te yàlla rek tax. ab laaj daal di samp ndax tey jotul jigéen ñi nu dox leen seen gëdd ndaxte bu dee ci wàllum politique bu nu wootee ñoom ñooy teew seeni yoxoo buñ ko sippi woon ci wàllum koom-koom Sénégal nërmeelu.